waaw maa ngi vidéo lii nii maa ngi nii Eugene Oregon dama ñëwoon pour seeti uh, Youssoufa Diouf Diouf so maa ngi nii uh, aéroport baa ngi nii après fii laa mujj ñëwaat fanaan fii parce que uh, dama fa demoon mais hôtel yi dañoo fees quoi mais vraiment Youssou de li mu ko gisee moom dafa yàqu completement completement maa ngi ko gis mu ngi drogué wu xamu sax fu mu ne hmm, ànd ak benn tubaabum boobu daayee na te xam nga gis tamit mu am benn tumeur bu mag nii ci épole bi mais c'est extraordinaire maa ngi sonn bay bëgg a dee mais bon xam nga rek dama ñëw ma def euh, sama wàll jullit ñoo ne dama koy jàppale xool mais xam nga tamit mënoo jàppale ni koo xam te ni bëggul jàppale boppam donc euh, vraiment après ànd nañu ma xool ko dama parce que bi ma ñëwee ma dafa woon nekk ci benn kër gelam ma ñëw fekkoon nag ci crack house bi maanaam fu muy utiliser drogue. parce que da doon wax doom ji comme quoi que ni dañ ko opérer ak yooyu noonu léegi bàyyi na quoi xam nga mu ngi toog noonu si kër gelam bi nekkite delluwaat na ci beneen kër gelam boo xam te ki ko dugal ci dor fa la nekk donc xam nga comme dafa guddee nii comme ni ngay gis gisoo dafa guddee moo tax bon bëgguma ko wax dara léegi damay bàyyi ba demee parce que dawal atlanta laa eh, jógee dawal ba jël avion ba eh, ba fële soclent utah après utah ak ak ak oregon fii nii eh, ay deux heures de temps la quoi donc man na presque ay huit heures de temps de de vol waaw léegi damay bàyyi ba demee ma leen waxtaan ak moom bu fekkee na bëgg na ma dimbali ko ma jàppale ko nag ñu ànd ma luwee oto mu ñu delluwaat Atlanta bu dee bëgg ko nag ma xam ne moom vraiment bëggul bàyyi dor bi parce que vraiment di ma ko gisee nii dafa yàqu mu yóbbu ma ci benn basement boo xamante ni benn benn kër boo xamante ni kër bu dee boo xamante ni dañ koo lu def dañ koo jox ci suuf noonu pour mu dëkk fa mais loolu animal sax du fa dëkk mais c'est loxo yi dafa commencé am actrice loxo yëpp a yàqu lemu loxo yi dafa lemu quoi boo gisee maag moos la nga yaakaar ni moom a mag foofu te pourtant ñoo maase xam nga yërëmul doomam yërëmul mbayang yërëmul yërëmul kenn xam nga si si extraordinaire bon xam nga rek maa ngi nii si seen aéroport bi Eugène donc damay xaal ba demee incha allah après ma jéem a xool ndax dinaa ko ci mën a génne waaw mais daal mu ngi doon wut euh, parce que bi ma ñëwee ba ma jëndee sama billet ba pare parce que dama njëkk a wax ak moom avant may ñëw mu ne man kay Mohamed amuma bonjour ñewé kay waaw vraiment dama soxla nga dimbali ma quoi ma Atlanta ba dugg ci avion bi mu message di comme quoi que ni mom ma bugul ma ñew quoi na may temps donc ça veut dire que bugul bàyyi quoi bugul bàyyi drogue bi mais vraiment ni ko <laughs> ni yakuna na sax ma quoi je je je ferai de mon mieux mo demain inshallah mais doyna war bon ngi Eugene Oregon voilà ngi ci Europe bi fi lay mujjé fanan ba suba inshallah ba ci kanam ni rek ya ma dem après jëm wax ak mom quoi